et puis escale bee yàgg. déedéet kay yow tu as dû souffrir. ouais j'ai fait presque une heure de temps à Bruxelles. ah ouais. ci Pape Cheikh ñëpp la na moon kay sa valise bi mënuma ci dara dégg nga. attends attends ah jëlal lii. yow nag amoo benn njëriñ. ah jëlal lii waaw nii la nag xeex damay xeex xeex la. xeex la sëñ bi na ngeen def waay ça va. Ah, ah, waaw fi mu ngeen def. jaajëf delloo siyaar delloo siyaar ñu ngi sant ñu ngi sant bu wér. alhamdulilah yow daal xam nga lu ma bëgg léegi. waaw yóbbu ma sama kër yaay mais pourquoi bàyyi wu sa ah, chauffeur jël si bi nga koy bi nga na mu dem. ah il est parti ba xata il descend tout je dis bon c'est pas grave on est ensemble sama kër yaay. bu <laughs> sonn di noppalu mënuma fexe ba noppalu ndax xale yi déggoo bruit beeg vacances yi la moo tax bi may ñëw maa ngi gis ni ngi nekk ci mbedd mi foofu di ci et puis heure bii nii aussi tamit ah vacances yi de lii la laaj ngay ah, sonn c'est vrai que c'est normal nag mais c'est normal journée ça va ça bien passé alhamdulilah bi ñëw na fi sax voilà kon finalement parce que je n'arrive pas à le en fait depuis tout à l'heure maa ngi koy jéem a woo mais elle est sous boîte vocale. waxoon na ne dina la woo xam naa ne professionnel bu mag la ñëw na xool diagnostiqué. ah c'est bien ça. jox na ma ay proposition nee naa ko nag lu mu gën a simple bàyyi naa ko si loxoom damay bañ mu cher. oh non bul dugg ci cheraay boobu cest di que lu mu gën a rafetee man moom may arrangé lu mu gën a cher aussi en fait loolu du sa domaine sama domaine la toi aussi. li nga nekk di def yëpp moo bëri société beeg lu ne damay bañ mu metti ci yow. waa mais lii priorité la. quand même yow soo bëggoon sax peut-être que mën naa wutal beneen appartement bu bees. non fii baax na pour le moment. ok donc bàyyil kon mu ñëw defaraatal la fii comme ni nga ko bëggee aménager la ko defal ci liñ ci bëgg yëpp yëpp nga xamante ne si boo au moins nga mën a nekk à donc mu des climatisation bi parce que je vais essayer laay sàmm dina ñëw defal la montage yooyu xool defal ma devis yow côté prix moom bul ko soo yoon neew ci. dama laa yërëm rek. non jaru ko jaru ko. man yërëmuma sama bopp bul ma yërëm. Ah. waaw en parlant de loolu defal nii. waaw ah, dina ci baax. noppalu teg ba yi dindi sa costume bi. waaw ah. mets-toi à bëgg noonu. man yow kan. buur. Eh. ah ça c'est ma jojo. <laughs> buur na nga def. ça va bien maa raw maa raw. waaw maa ngi sant yàlla. non non du jiitu doo ma déranger. dafa xaw a doo ma déranger waaw man ma faral di di di dox guddi. dëgg la dëgg la franchement pas ndax am naa bébé ci yow. waaw ah, dëgg la dëgg la. dëgg la bisimilah yegg si. yàlla dafa dogal <laughs> lekk bàyyi la. duma naan bàyyi la. ndeysaan saa su ne sama xel day na ci yow ndeysaan ndeysaan moroom bu dibiteri na nag déedéet kay jaar fa jëndal la dibi ay buur ku la bàyyi yow tamit non lii du dara ay buur sonal naa la de dina ce que joojo xam nga leen uh-huh. man bëgg bi ma la bëgg ndeysaan amul app laaj man mi man joojo uh-huh. dama bëgg nga xam ne uh-huh. buur géwél moo ñëw di la seet wallaay mbëggeel capitaine borom bala fu mu ko fekk da koy maaj la. très te bëgg goo ma bëgg yàlla xam na ne bëgg gi ma la bëgg moo ko raw. wala loolu xam nga loolu neex na bu dee ay nax sax neex na xam naa du nax. yàlla tere karam ko xool xam ne man rek nga bëgg. wallaay yow rek laa bëgg damay tëdd sax di la xalaat. nii xoolal ay yow tam waa ñëwal nga yegg si a egsi damay dem ni bi nii nee naa la man guddi gi du may faral di dem di di doxaane ay waay xam nga doxaan guddi moom xam nga te am na mbébét am naa mbébét ci yow jarul kontaan naa nii la góor bu nekk ak euh, jigéen daf Euh, di xool ndax lekk na mhm. wala ndax naan na wala ndax tëdd na ci jàmm te góor gu am yërmande rek moo mooy xam loolu xam naa ne yow mii euh, bëgg nga ma waaye ma nit am naa cofeel ci yow ndax nag góor li tax ñu koy bëgg moom moo koy def joojo nee naa lii du dara wallaay la ma la doon wax rek mhm. moo dikk wallaay joojo nee naa la bongo du morom bool xam nga lu ma neex ci yow mhm. loo wax def ko loo digg def ko waaw yéen bool moom Eh, <laughs> doy na waar di bongo mu aw yàpp lu ci bool wuti. da dégg sa tur. yow yaay bool. man su ma déggul sama tur dégg bool te bool ko ko tudd maa tax. Ah. ku tudd bool maa tax. waaye yàpp guddi. gorde du tool salaamun xawla yàpp guddi. nga gàddu ko ak sa mbuus gu ñuul ñëw salaamaaleykum indi loo ci tuddee bool. ak jamono ju toj ji en tant que jigéen tamana ci kër gi. xanaa buñ la fëggee nga man maa bàyyi mu fa mu bi. pour lan nga góor góor a koy ubbil sama kër la. yow day jàkka jaw wala day église ba ba tax nga bëgg maa may riir te ma samay nawle Pape lan la yow yaay kan. li ma may priorité ma ñëw toog fii maak yow ma ñëw toog fii moo waral ko ubbi buuf ku fëgg bunt bi ma war a mën a ubbi. amoon na jàkka ñëwagul église ñëwagul waaye nag. addunam xel jamonoy bët te ba ñu naan tëb leen mbaay fekk na soo cat cat ba fi sam xel. ba nga xamee loolu nag nga waroon a xam sa bopp te xam sa bopp moo gën ñu woola naan kii nga doon nit da ngay xam sa bopp ñu def noonu chéri waaw dinañ déggante bu soobee yàlla kontaan naa na res ak jàmm kontaan <laughs> sax moom duma ko wax leen waaye yow lii moo daglul xamal ma lay xamal man dooma yab yow avec ça nga ne yow géwél nga yow ñëw taxaw génn waxoon man nuyu woo ma ñëw di ma adressé ay parole buti ceen too xam yow duma sa morom dama buti buti laa dégg yow dama ne xam nga ma bu baax xam naa la bu baax nga xam ma yow kii nga mën a lëre moom mii jigéen waaye man xam nga ni mënoo maa lëre jooda mbaay mii nag moom tubaarkàlla bi nga may dégg léegi ñu naan ay yàpp ak ay bool ak ay nangam bi may jóg sama gàllaaj yaa ngi seere yàpp guddi ga nag ba demuy si nga gàddu sa mbuus gi xaw ma da nga cee def ay ay ay gàllaaj xaw ma loo ci def ay tookeeg ñooñu ñoom ñi nga mën a lëre ñoom jigéen waaye di nga xam ne jooda mbaay jooda mbaay mi mi ngi ci sama loxom nu joor bi te téye naa ko dootuma rëcc mukk ci àdduna dama ne lii moo tax bu artistes yi ak géwél seenu der yàqu na koo tudd géwél mën la baaxul mbaa mbaa ci ak caay-caay la ñu am géwél yi léegi bu géwél bëggee géwél moroom géwél jaar ko ca suuf bu artiste bëggee dara moroom artiste am jaar ko ci suuf léegi bu ñii di gas ñii di suul waaw fan la pëppën di amee fan la am pax di amee yow fi mu ne nii xalaatu xale sa nga yor. bàyyi ba dem yi sëy nga fëgg buntu këri jàmbur yow sax say mbir dafa wóoratul. yow dama yow ban mbiri lan yow saa di xamal yow li met xam naa ko ngay nekk nga nekkal mi xam nga kii xam nga kii dafa xiif. dafa guddi dafa ko wuy ma dafa guddi. waaw dafa waay dafa ni waay waay. yow dafa kii nga bëgg fi def yow.

loo bëggoon. koor gi jàpp la de. da ngaa bëggoon soo ñëwee di ma yooyu lex ah dégg nga ma gis nga sama lexu yaay. eh sama yaay daa am lex de xoolee <laughs> ay yow sax dem sama kër Mado daf ma jëli si aéroport ma ne ma directement sama yaay. ma defal je te jure lii nga ma defal nam la. sama tëddee tey damay def yaay sama xarit. ah dégg nga yaay da nga am lex ah. <laughs> bët yi ba waaw lex yi ma lex yi ma man lex ma xaw a jaaxal quoi yow tamit xamal ni nag damaa woor waaye dama doon dund nag ah, sama yaay kat daa ni ku doon ku doon wooru gàlle <laughs> yow yow yow yow soo ñëwoon ma ma ko mu doo tiit waaw dinaa jaaxle de ah? dinaa jaaxle de ak li nga stressé nag dernièrement ba pare il fallait que nag ma tukki ah waaye xam nga su ma la woowee rek nga ni ma yaa ngi ci jàmm ma dégg sa baat bu nu muy kiiwee sama xel bi day daal barki Serigne Touba maa ngi woon ci jàmm c'est-à-dire gis nga euh, yaay fii fii réew mi toll mhm. recul dafay jàngale lu bari gis nga euh, buñ lay jéem a lambaaje noonu di la jéem a jaxase di la tëgg-tëggee ci réew mi. Mm-hmm. c'est toujours bien nga jël recul. ndekete euh, tribunal lu saafara. ndeke alkaati sax saafaraatuñu. ndeke nit ki mooy saafaraal jafe-jafeem boppam. Mm-hmm. et recul dafa am solo. Mm-hmm. te dama ci jàng lu am solo yaay ci sama tukki bi sa à dire de loin je me suis compte que as gor bu nekkee ca kaw. bu ñu ko jéem euh, bu ñu ko dee jéem di wàccee. soriwaay baa tax kawe kawe kawe ba. kawe baa tax c'est-à-dire am na noo xam ne da fay toll bu ñu lay jéemee di wàcce rek la nga kawe moo tax. Mm-hmm. et su me suis rendu compte kawe gi suñu borom moo ko def teg. mindeef mënu ci dara mais j'ai beaucoup appris billaahi wallaahi. luy jot jot na te am na foo xam toll naa fa sama diggante ak yow te bëgg naa trop mu nekk loo xamante ni si nga jël ko au sérieux mm-hmm. parce que lu ma bëgg la. lu ma ñor la Sénégal mosuma fi yàggee nii te bu dee alal rek non Europe gee nekk am naa ko fa maa sant bu baax. ba ciy dimbali ay doomu aadama mais nag dama ñëw wax la ko ci njëlbeen ku gis sa jinne jommi te ku jommi neexut a faj dëgg yàlla donc jël ko au li may def nii bul ko jëlee lenn mën naa ko ci dinaa ko def te dinaa def lu ko raw mais nag dama bëgg tamit ñu jël mbëggeel bi sama diggante ak yow mu lal ko ba lépp luñ ci am muy bénéfice diggante ak man doo ko rëccu ku ma toppatoo rek laay wër. loolu du problème naa la toppatoo comme yaa ngi doog a judduwaat. loolu loolu boo ko defee dina dina dina doon lu may neex trop man parce que tamit bu doon alal la bu fekkee ne alal la am naa ko su fekkee ne peut-être que dem dikk la lijjanti ko génn ko mais lenn rek mooy sama problème mooy à chaque fois su ma ñëwee Sénégal li may gën a perturbé mooy li mu bëgg duma ko am mooy mbëggee la. yëfi baadoole yi nga def tey nan nga ko mënee ah yow gis nga sama digganteeg yow ni mu demee yaa ngi nii boo ñëwee ñëw indi say waxi kese ah doomu jàmbur ji nga xamante ne yoonam newu ci xamoo ko xamu la ah? xamoo fu mu jógee xamul foo jóge ah nga jàpp ko di ko toroxal xanaa bu dul dara nga xool sama nawle yi ma nekkal Pape Bool man dama am ay nawle te fii ma nekk kenn yabu ma mais yow yaa ma nar a ñàkkal fayda yàpp ma ba ku ma gis di ma këll-këlle pour lan foo ko teg. yow. amoo xel. koñ du buñ la respecté. dafa fekk nga jëf luñ la respecté mbaay baagante dugg ak génn ci magum jëmm day na yow. nga bëgg koo teg ci farantu góor ñi góor ñi dugg ko génn te nga naan dangaa bëgg koñ bi respecté la. nit bu buñ lay respecté day fekk nga respecté sa bopp. lan mooy magum jëm ba 23 ans. mbaay xale xale bii ñëw. xale bii tax nga bëgg moo ko jëndee. xale bii naan ma ay goos ak xale bu am jom ay petit dafa am jom ah dafa am jom ay goos ay petit te xale bi ma xam ko bu baax waaw borom jom la nga tëdd ba toog ba guddi ñu indi la aw yàpp xaw ma lu nu ci def dikk indi la ko tegal la ko fii yàpp moo gën leneen moo gën waxi kese moo gën mbelelele moo gën ñëw toog ba xaaju guddi nga dem sa yoon kii bu ñëwee it njariñ la ñëwee ndax nag bu ñëwee lu mu dee dee dee dee dee dina ma jox xaalis te dina ma indi lu ma lekk ndax xam na ne maa ngi dégg xiif. te macha allah esprit bi nga ñëwee kontaan naa ci. billaahi man tam kontaan naa ci ay waay yàlla oh. waay waay waay waay. <laughs> man de xaw naa def ñoom bi. Ah. gis nga bu mu wàccee aéroport ma ne ko da sonn nañ dem nañ dem nañ dem. ah man loolu boo ko defoon du ma la ko baal <laughs> sama taw bu góor bii ni ma ko nammee. billaahi ma damay toog wéet. toog te xam nga bu ma ko gisul sax dama daan yeewu suba teel julli taal télé bi toog di ko seetaan kontaan su ko defee su jeexee rek ma daal di tëddaat mais <laughs> gis nga ma yaay nag yaa ngi jongoma ba yàqu nag maa rafet yaay nag kuy sa yaay ah yow <laughs> waaye justement xam nga lan moo ma neex ci lii lépp mhm. Mhm. maanaam ni Pape Cheikh waxee léegi mhm. il a pris beaucoup de maturité te gis nga maturité maanaam nekk xale di xalaate nii amaana kilifa bu mag donga ko mën maanaam Pape Cheikh nu mu tekkee nii seetlu naa ni maanaam daal kilifa daal mi ngi ñëw te ci kanam léegi ma wax yàggatul Mado dina ko doon dafa bëgg ndeyam bëgg ay mbokkam toppatoo ma moo ma tax a mel nii fi ma toog laay toog xëyuma ma lu mu liggéey ñoo jox ma ko tubaab fakkaal la ca kaw la jëm mm-hmm. jeexagul dina jëm ca kaw waaye gis nga noonu muy nekkee kilifa mm-hmm. kilifa goo gis ci àddina mm-hmm. jigéen ju màgg ju baax a ngi sa ginnaaw ah. dëgg la <laughs> te muy dëgg déedéet ah, déedéet yaay sa dégg bett na ma di bi déggu déggu lan la yow loo bëgg wax foofu man benn jigéen ju baax la am mu yow di benn jigéen donc moo nekk sama ginnaaw muy sama ndey ji toog dangaa yokk nu ma yokkoo. Astu fi ñëw seet si ma. Astu man yaay. Astu sa Astu. Astu Mbay. Astu dafay ñëw yaay. Astu de ma seet si bi koor gi waaj a jeex. nee na daf maa indil suukaru koor ndogoo. Astu capable nag. Paap Astu daal suukaru koor la wax ay teraanga la ma juural. yaay wax ji ñaar la Astu nu mu fi xamee. Kolle ko fi indi xam nga Kolle kat. d'accord lu Astu def. ay teraanga la ma indil. Hmm. boole kook enveloppe bu mag. sama xaalis ah, ma kontaan gis nga bi ma tijjee enveloppe bi dama ni kii la <laughs> ma ni sama gént ga. <laughs> fekk nga sama yaay ci xew. bu yoree xaalis da ngay gis ni. damay kontaan c'est-à-dire sama yaay bu jàpp bu jàppee laa mel na ba mel ni kuy compter. ah yenn saa yi mu yenn saa yi xool mu <laughs> ay téeméer téeméer donc mais pour jaay maanaam jaay jeeg. xala Mado moo ma ko su may dem xew day wecceeku yu bees tàq jox ma. <laughs> maman noonu la baax na ba dee. ci daal ñëw na fi. Uh-huh. sama gént gay bëgg a doon dëgg. xale bi jongo ma du barkalla. Mm-hmm. xam na teraanga. Mm-hmm. man daal fay naa ci moom. Ah, kon astu daa bàyyi ba ma dem mu wër ma ndombo. li mu def baax na nag. waaye dina xam ne maa ko gën a bii dama cee jàng lu bari. xam ne maa ko gën a garaaw man lay àkk. <laughs> fii de ñu fi indi suukaru ko ñëpp bari nañu waaye bu astu moom ñor na ma. <laughs> baax na. bàyyi dem yaay. dangay dem bàyyi ma dem rek. bu suba bi laay man tam su su ma su su dul woon nag Mado Mado fii laay fanaan mais comme mm-hmm. euh, sama chauffeur bi mm-hmm. temps yëpp liggéeyul donc du coup bëgguma woon waa kër ga xam ni maa ngi ñëw tey mm-hmm. sànq laa woo Mado pour ma abal ma otom ma je pensais que sax chauffeur bi mooy ñëw mais moom moo ñëw directement moo sax j'étais voilà j'étais surpris quoi xam nga yow moom sama yaay nga te vraiment ku ma àndal bëgg nga ko parce que bëgguma tamit ay lu tax woowuma sama mbokk mu jël si ma aéroport yow kii xam nga sama diggante ak moom voilà donc moom sama gaayaan la quoi daanaka sama ange yàlla na ko yàlla yokk ku baax la ku baax la ku baax la amiin yaa rabbi amiin may encaissé waaw xolam yu baax yeeg yooyu nga ceebu jën waaw bu subaa moom laa lay doggal bu soobee yàlla Aliou ma doo ay waay ma doo noppalu leen kontaan naa jàppal ne ndax man mi di ak yow je me suis sacrifié entre l'amitié et l'amour jël risque bu rëy nag lu ne mën ma cee fekk mais comme on dit gumba tëx lu man lu ma ci am jël parce que man maa ko accepté engagé wu naa ci te dama ci dem à fond lu yàlla tudd mooy loolu parce que tamit fii gis nañ fi lu ne. moo tax nag ma la dëkkuru ci boo ma toppatooyee. dama bëgg tamit ñu doon nga xam ni euh, du yëfu xale yëfu mag la kon nañu def lu gaaw. gis te kafuma ci réew ma ci su ma fa taxawoon a jóg je pense que fee ma jógee fa la fo yam. dëgg nag dama ñëw doon installer société pour ay projets yu ma fi doon pour delluwaat mais dama la gisaat tamit nga bokk ci projet yi may gën a installer au Sénégal. parce que tamit aussi il faut il euh, faut ma wax ko loolu rek mooy sama souci principal ku ma toppatoo. nga sa xel daal li nga bëgg lépp di ko am li nga doon wër lépp jàppal na gis nga ko. sérieusement de loolu day su ma ko mënee am ma chérie man dina doon loo xamante ni si sérieusement lu lu lu lu may neex lay doon dama ma vie. t'inquiète pas avec le temps di nga gis nànk-nànk rek nañ def nànk rek. et quand tu de de sacrifice en fait. loolu nee naa la bul ci dugg parce que sama domaine la man ak euh, sa xarit. waaw loolu am na waaw en parlant de loolu yow ak yaayu Kya moom qu'est-ce qui se euh, yow lu fii indi loolu te aussi. sopp rek ak bëgg a xam. waaw non loolu loolu loolu loolu c'est une histoire ancienne en fait c'est juste que mooy li ma la wax rek ku ma toppatoo laay wër. bëggoo ci wax daal. waaw non dafa fekk ne loolu sama domaine la nag sérieusement parce que aussi dama ci dama dama dama dama dama am ak moom doom mais dafa loo xam kenn du mën a wax lépp. waaw suñ demee ba ci biir non di nga xam lan la kenn du la ko wax. boo ma toppatoowee rek non di ko xam. danga maa bett lool. ci lan ci lan la danga maa jële kaw lool. mooy man damaa defe ni woon. Mm. ma ñëw tuuti. ñëwal ma ñëw. ñëwal ma ni. Mm. yow ci sa jëyi bopp xam naa ni sama digganteek yow ëllëg bu war di am xam naa ni du bàyyi ko ci man mukk ci àdduna. yaa ma njëkk a war ba nga ma waree yàgg na. yow nii ci laa ragal ni ci la war gii di bàyyi ko waaye du jóge ci man mukk ci àdduna te nit nag dangay ngay sàmm démb laata tey di ñëw te xale bii bu dee maa ngi moom rek ci kattanu yàlla. du ma moromam ci zahir du ma moromam ci baatin te dina xam ni maak moom la yow man àdduna tukki rek baatu baatu bakkan ci suuf rek. waaw waaye xale bi itam jom rek ak fulla ak weccit ak ndawal xam naa ne sax dafa guddi. te man mbaay yàgg na maa ñëw yëpp waxante wu ma ko bu ndawal rek ñu lekk bu ndawal ñëw. kaay ñu reer baax na baax na baax na baax na. yàlla yàlla am na weneen yàpp wudul gajj yàlla. am na yoon yàppulul géej kon baax na man maa ngi ñëw dem mbaay ba suba ak jàmm lekk yàpp la baax na ba suba ak jàmm mbaay jàmm ak jàmm waaw kañ moo demal yeggal ak jàmm ak salaam may xale bu tuuti vingt trois ans dong laa am deux ans deux ans ba pare nga normal yàqal samay mbir doo ma ko yàqal <laughs> may xale bu ndaw boo bësee bakken wi <laughs> soow génn moo ma yeggal ak jàmm ak salaam tout changé nekk waaye kon soppeeku woo yow booy ñëw def nga ma lu ma metti nag hmm. damaa sañse bu baax defal lu rafet di nga woo ma ñëw aéroport man su ma yéegul ci avion man ma taxaw buntu aéroport lampi si ma ne leen vaay vaay aéroport lan kenn du wax aéroport on di aéroport yow ak ni nga mel ak sa làmmiñ wuur yi man foogoon naa ni soppeeku nga mais nekk soppeeku woo commencé waat nga soppeeku yow kan moo la war a indi sax yow nag Pape Cheikh kan moo la war a indi ku dul Mado Mado yow daal yaa ngi wàcc ñooñu. Pape Cheikh am na yoo xam ne rafetul nag de. da nga may jàppale wala jàpp xew te xew nag yow. da nga may jàppale wala jàppale dama lay waxal lu baax rek yaay animateur de tous les temps retour de Pape Cheikh ñu war a rëkkatal yéegal niveau yi def ña mbax boobu tëree bi. ah cëm sama mag yal na la cat Cheikh. xam naa ni Salamine baa ngi xasan mm. suba. Mm. fajar mooy càppantati su ma xëyee. nga defal ma rapport li xew ci kër gi sama ginnaaw yëpp. ma wax la lépp waaw wax nga lépp suba du ma nelaw guddi du ma nelaw loolu dafa bari bari na trop. <laughs> lu fi xew. li fi xew. ana laay. waa yooyu yëpp ñu def suñu leebu. damaa sonn damaa sonn waa léegi ma du la de. damaa sonn damaa ma ko wax suba ci journée bi day jeex. xoolal je suis fatigué. comme ça yàq làng ñëwoon toog ràcc. yaa nekk nii.

chérie je suis désolée yëf yaa ngi bëgg a ëpp loxo te maa ngi commencé tiit faut mieux qu'on arrête Collé ma la ah d'accord ça yaa ngi ci jàmm waaye yow sa waa ji ñëw na xanaa yëgoo ko Pape jóge na Europe barke yonent bi man daal maa solu ba jekk yaakaar ne danga may woo pour pour nu jëli ko aéroport nekkate ma doo ko indi waaye yow déggoo li ma la wax moom lu leer laa lay Pape ci kër gi indi ay xeetu valise yu kenn xamul. quarante cinq valise wàcc na ci kër gi tey jii ay xeetu mbaax fu ne fi mu jaar dafa bari nag koro ba mu woowee ne ma mi ngi États-Unis Angleterre Suisse Japon waaw fépp la jaar te fu mu jaar jëndal na fa benn valise lépp nag yaa moom teraanga yi yow xanaa danga ko yóbbu yóbbante woon ay bagages ah surprise bëgg na la nag bëgg na la waaye leen laa lay wax boo gaawul dinañ ko jël waaw xam nga moom da koo dar ne dar man dara ak faama cuun ñooñu xeet googu doo ko indi li ma la wax ne la Mado dafa gi ma ma taxaw ci balcon bi laa gis muy dugal muy dugal valise am jox na ko valise bu mag xam nga moom dafa xam teraanga Pape Cheikh moo xam teraanga waaw dafa xam lu baax leen nag laa lay wax ñëwal asu mbay ñëwal suba première heure nga ñëw yow xam nga ne lu fanaan ci kër gi duma ko bàyyi mu mu yenn ah, waaw danga juum hmm? Collé ban heure moo jot Collé tey laa xam ne nag ndekee fen feebar la ci nit Collé yaay malfaiteur Collé gis nga heure bi jot nga nekk fii di wax téléphone di wax luñ la wax loowul xanaa sa biir bay xasar wala sa làmmiñ lii ngay wax nii munoo bàyyi bu suba nga doog koo wax mais trois heures xaw ma cinq xaw ma ban heure jot ngay wax téléphone di wax ay wax yoo xamante ni sa yoon nekku ci Collé wàññil sa gàllaaj ñu jam la Collé Collé yow amoo rusukaay sa kanam te na fexe ba séddee ci yi nga yi nga dig astu suba bu ñëwee ci kër gi na ko ko jox amoo jom mel ni ku demoon Paris